saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa écurie ndakaaru bu Yaxya Jóob Yékini ak suñu papa Amadou Kati Jóob situation écurie ndakaaru ci saison bii ñu génn la suñu lamb xëyee bilaam écurie ndakaaru buñ ko xaymaa 15 combats la 7 victoire 8 défaites li nu jot a ci saison bi li muy néew néew ndakaaru am na ca 15 combats 8 la ci am am ca 7 victoire journal ba xam le ne Yaxya Jóob Yékini dem na ndakaaru di jayi jayi Yékini s'en va ndakaaru ko bindee ñenn ca yaakaaru écurie ba bëreewunu amuñu combat kii di anti jot am ñaari combat daa daan ñu daan ko benn bi ba Yékini Senior ak Malick Niang di missionné dañoo jàppoon ne Antec Tonnerre 2 ak Sibel ñooy doon relève ba ñetti espoir yooyee amuñu combat dégguñu combat gisuñu promoteur fukki mbër ak ñeent ñoo fa défendre couleur équipe ba muy Boy Diouf Boy Jobaas Ama bu Ndakaaru Ibu Afia Koña 2 commando ak Sita bu anti caatu Ndakaaru Sikori Volcan ak yokkal coow Tafa Gueye topp caak Ndakaaru seen sept victoire ya Boy Diouf moo daan Boy Ndakaaru daan Garcia daan Bas Njaago bu Bosco Sow Siteu bu anti daan fils de Sam bu Mor seen huit défaites yi nag Balla 3 bu Balla Gaye moo daan caatu Ndakaaru Max Mbergan 2 bu Lansar daan Sikori Bébé Aselem daan Volcan Louis Thior 2 bu Lansana daan seng gi Pima Noir bu Parcelles Mbooloo daan Youssou Dieng 2 Wës Jàmbaar daan Koña 2 bile bilan moom la écrit Ndakaaru def ci bileb saison bu dee coach ba Amadou Kati Diop la mu xamle mooy dañoo war bëgg akara faaw nga ñeme kaani bëgg akara te ñeme kaanee waral yàkkamtiwul ci li muy def dara moom Lac de bu waalo fa mu teg bëtam ba léegi foofee la ko teg te noor yi muy joxoñ ne ñoom la bëgg a bëreel ñoom lay xaar ñàkk combat du ko tax rappi rappi du ko tax jël ku mu jël la daloon tafaatin ca tournoi TNT ba ca loolee lay bañ mu dal ko moom Lac de Guiers te du parax paraxee saison bañ ko fi tuddalee rek rek staffam dañoo bu dee fii ci Dakar écurie yi fi nekk yépp presque seeni ténor am nañu combat waaye ca Thiès ñu ngi jooy seen champion yi di Modou Anta ambulance ba xam ban promoteur moo leen di seet si la jili waat xamle mooy Modou Anta ambulance amul kenn ku leen mës a daan te saa yu ñu amee combat Dakar dañuy mobiliser bu ñu bëree mu neex bu ñu feccee mu neex moom coordonnateur école de lin Mor moo xamle li ni rax ca dooli ne maa ngi woo promoteur magam ak dëkkandoo ñépp a teew ci bile bés képp ku bokk ci lamb-lamb ràññee la démb teew nga ci bile bés seede ba benn la champion la borom baax la Baay Faal la lenu koy ñaanal moo yal na ko yàlla àtte ci yërmandeem jërë ngeen jëf mbokk yi li moo li gën a fës ci tu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg allah